mbokk yi bàyyi xel public SN TV ñu ngi leen di dalal jàmm ci flash info bile ñu tàmbale ko ak waxi Tange Tandian moom journaliste people bile daal dinay génn def ay révélation jàkkleel ko couple Mabo bi ci seen divorce bi li taxoon mu génnoon di wax ci diggante ñaar ñooñu le dem na sax bay wax ni ki nga xam ne moom moo di si biir na bu yàgg ci biir néegu sëyam boobu ay violence yu bare bari yu ko jëkkëram daan teg daanaka ñaat téeméer yu mu jëndee crédit sax daaw ko am ci biir liggéeyam boobule Tange Tandian yemul ci loolu le waaye nee na Mia dañ ko daan duuma guddi ak bëccëg maanaam jàmm daal fekk ko woon ci bu néegu sëy lii les révélation li waraloon mu def ko nag wax na fi mu ko teg ak itam fan la jëlee yooyee xeetu information ba defoon alerte boobule ginnaaw alerte boobule bari woon na ay kàddu yu ci jugoon kenn ku ci nekk ak baat bi nga ko ci yàq ci xeetu musiba ak mbelengaan moo ne de la mu waxoon sax moomu jee am moom Tange Tandian gistoon na ni tooxi doona mu ngi waaj a am ci boobu lépp diggante tooxi doona weesuwul li ñu def dem ba gisee artiste chanteur bi lee ginnaaw anniversaire am bu rëy bi mu amal ci Sorano ak réussir gi nga xam ne jot na ko réussir moom dem ba gisee artiste bi lee dafa daal di xëy yeewu fekk otoom ñu daal di ciy fëgg benn pirig toj parabis ba la nekkoon ko yóbbu Demba Guissé nag ñu gis ko mu taxaw ci wetu watam waaye nag ànd ak xol bu naqari ci jëf ju ñaaw joojule nga xam ne jot nañ ko koo jëf moom artist bi ca soraano la daal di feete ab anniversaire am ci samedi gii ñu génn moo ne de la mu fa def moom la nit ñi di waxtaane ci li nga xam ne moo di xeetu message ak itam spectacle bu ànd ak son et lumière maanaam jëf na fa lu rëy loo xam ne kenn dootu ko fàtteeti ki nga xam ne moom moo di Amina Poté moom dellusiwaat na ci kaw seen bi gannaaw ba mu raalee lu yàgg moom animatrice bu mag bile ca télévision Futur Média gis nañu ko mu génnaat fas yéene def lu rëy loo xam ne ñëpp ñi ko namoon dinañ daal di bég ndax moom Amina saa bu ñëwee rek daal di bégal doomi aadama yi moom nag ñu gis ko mu sol tëneem bu jekk loolu wane ak taaroom ba noppi itam di promettre ay artistam wala bokk ay fansam yi nga xam ne bëgg nañu ko te di ko bàyyi xel ci télévision nee na leen dellu suwaat naa na leen leer nàññi ne gaynde gi ñëwaat na fii ci TFM fas yéene waaf def li nga xam ne moo tax ngeen bëgg ma Queen Biz ma ngay félicité ak ndokkeel xaritam bii di Rihanna moom Queen biis nag ñu gis ko mu daal di posté photo Rihanna mi nga xam ne dafa daal di ëmb ñaareelu doomam Queen Biz mel ni ku ko cay ndokkeel di ca am mbégte waaye loole mujj na ko wexaat moom Queen Biz ndax ca commentaire ya neexee xool dina bari lool looy reetaan ndax Queen Biz yàq nañu ko ca xeetu musiba ak mbelengaan maanaam façon baat bu ñaaw bu ci nekk yëkkati nañ ko yàq ko ko moom Queen Biz Saint-Valentin ni ki ëllëg la Papa Diouf ma ngay waaj a génne clip bi mu duppee Superman Love Superman Love moom Papa juuf nag ginnaaw ba ëllëg la ko nar a génne faramaaren bii di Wally Ballago Seck itam fas yéene nday cee teg li nga xam ne mooy why ñaari way yëpp di wax ci mbëggeel fanaanee génne ni ki ëllëg ci 14 février bi le ngir bégal ñi nga xam ne dañoo daal di bëggante ñaar ñi bëggante te ñu bëgg a tas seenub diggante wala sax mu far tas muy diggante Abdoulaye Diop Khass ak Soumboulou xaritam ba woon moom Soumboulou ki nga xam ne moom moo di Sokono Stress dal na ci kawam muy Tické be moom mii di Tické Laobé nag ki nga xam ne moom moo di Sokono Stress wax na ko ay baati dëggam xamal ko ne ko nag du nii nit soo tooñee dangay nangu tooñ waaye nag doo tooñ ba noppi génn di sibile di bëgg a rey nit ñi ak sa wax ju baree bari ci gàttal Sokono Stress moom bàyyilul dara kii nga xam ne moom moo di Tické Laobé défendre na sumbulu ba noppi itam dal ci kaw Tické be ki dal ci mbokkum jaay katam di maam Ndiaye Savon dal na ci kaw Aïssa Rassoul ginnaaw bi ko Aïssa Rassoul waxee lu ne weng yekk ko fi xeetu musiba ak mbelengaan ne kooku dafay jaay ay volet waaye jaayul ay diw kott yam ci te ñun nag diw la ñu jaay un million moom Mame Ndiaye sabon nag nee na kooku ab dof la li ma koy wax rek lenn rek la moom mooy li nga xam ne moom moo dal na ci kawam muy dañ koo daal di takk ci ëmb te loolu kottu doy na ab wax maanaam ci gàttal ay Aïssa Rassoul dañu ko maye waaye ci kaw ëmb lañ ko daal di maye muy kawteef bi nga xam ne maam Ndiaye Savon jot na ko génne tontu ko Aïssa Rassoul ba noppi itam xamal ko ne ko wax ju bari ji muy wax yëpp bu jàkkaarlu woon ak man dootu ko defati